jàmm ngeen fanaan jàmm ngeen fanaanu exercise nag fan yi yëpp di dof dof lu fan yi yëpp mbaa defu leen dara jàmm ngeen fanaan alhamdulilah bës leen te seddoo téléphone bi vidéo bi pour nit ñi ñëw exercice la motiver nit ñi jigéen ak góor surtout góor ñi ame biir góor ñi am biit ku xam góor gu xam biit na seddoo vidéo bi jox ko góor gu xam biit Anyone that know a man that have a tummy, give this video to the man with the tummy so he can come and do what I'm doing. But also for women, but mainly for men, especially married men or men who want to get married and they have a tummy like this. Why they want to get married? Why? They should just marry to that tummy. They can't do nothing with a woman with that tummy. That tummy will not allow them. It will just be here. blocking everything. If you know any man with a big tummy, give him this video. You know any woman also that have a big give him the video, give her the video, but the men mainly. ku xam góor gu xamee biit bu rëy góor gu bugg a xam jabar wala xam jabar ba pare jox leen borom vidéo bi gaaw laa wax léegi léegi léegi léegi leen vidéo bi te bës ko te séddoo ko te jox ko góor ñi xamee biit yu rëy góor ñooñu lu ñuy defee jabar lii fa may naqadi góor ñu amee biir yu rëy ci askan wi tey xamee jabar fa may naqadi seen jabar yee ñàkk fayda seen jabar yëpp a war a ànd gerew ne leen feeg seen biir yi reesut fañ leen di ba ñu def seen bopp nit xànd dawi xànd def ni may def nii buñ mënta daw te wàññi lekk gisoo man ni ma koy defee def suma biir baa ngi dem waaye man xamee huma jëkkër sax de waaw may waaj a xam jëkkër moo tax may def nii xalaatal na fi ne bu boo xamee jëkkër te mel noonu ndax jaadu na surtout nag góor nag góor goo xam ne moom góor yaa xam gi moom biir bi fa koy xiit moom góor yaa ngay toot tooti ca ron fële tuuti ba bugg a dee di toot tooti biir ba xiit ko jox leen vidéo bi góor ñi am biig yu rëy yëpp Macky sàll ci boppam aadama Baro rakki Macky sàll jooj ak góor ñi mel ni ñoom ci askan wi tout jox leen leen vidéo bi yéen laay xaar ngeen joxe vidéo bi de baax na bisimilah. jox leen vidéo bi góor ñi amee biir bu rëy ñoom ñëpp tout mètre kilomètre Macky Sall Adama Baro ministre yi xamee biir yu rëy yi yëpp borom xaalis yi ko xamee biir bu rëy ku ne rek borom xaalis yi koy gën a xame jox leen vidéo bi borom biir yu rëy yi góor ñi tout du comédie de fañ war a génnee seen biir yi wala ñu fase seen jabar yi gannaaw wituñ lekk rek lañ loof nañ toog fële di lekk ba dee lu ñuy defee jabar jaag biit bi biit bi moo àndut ak jabar biit bi du nangu nga def dara boo ko mënta dindi nga ba jabar ja ngay gàddu xàqam loolu mooy dëgg gi jabar ji du la ko mën a wax bés leen vidéo bi te séddoo tap and share the video I'm talking to the men from my country that have a giant tummy. Are you guys hearing me? The men from my country that have giant tummy, from our president down, and they are married. Even our president Gambia has two wives. What they gonna do with that those wives with, with that tummy? The wife cannot tell them the truth. That's the truth. If you have a tummy like this, like a nine-month heavily pregnant woman like this, you cannot you know do do woman anything this is the truth this is nothing to do with comedy de they have two choice either to lose the tummy or to leave the wife alone give this man this video baax na jox leen góor ñi video bi give this man this video any man you know that have atomic give him the video share the video on your Facebook on your WhatsApp status share the video anywhere share it right now with everyone support this video. I'm targeting the men with the big tummy, the ones that are married or the ones that want to get Very serious war with these men to get up and lose their tummy or to not get married at all. Why the hell they want to get married when they can't even breathe? It's not fair on the woman. Look at me, I'm not married, I want to get married. That's why I'm doing this. I want to get married again, okay? Just want to. Never mind them that is in the marriage for 10 years, 20 years, and they can't breed. And the woman cannot do anything with them. It's not fair for the woman. Post, post this man to get up by sharing this video. They're too lazy. Share the video to them. The hell? Let me warm my legs first. <laughs> I can't just jump. <laughs> My legs are not warm. I've not been exercising for like five days or four days. tàppate leen vidéo bi suma tànk yi laay tàngal bala maa tëb duma mën a tëb tëb rek tëb noonu te suma tànk yi tàngal bi maa ngi jël exercise maa ne seddoo leen bi ngir yàlla góor ñi seen biit bi lu ko dindi du caaxaan man maa maneeg ñëw jox leen vidéo bi góor ñi xamee biir yu rëy yëpp ku ngeen xam ko xamee biir bu rëy mbala ngeen def ko seen Facebook def ko seen WhatsApp def jox ko seen xarit yi fii yëpp ku xam ku duwut góor yi jox leen ko ñëpp rek ok jox le joxe leen vidéo bi tapote vidéo bi te joxe ko ok joxe leen vidéo bi te tapote ko xaw ma kuy ñëw noonu fay sonal boppam du ma ko jël may exercice taluma jël nit joxe leen vidéo bi te tàppate ko care ku wax ne amee yow nga xam yaram yow sa bopp ma moo tax ma yëngatu suma yaram waa ngi wàññi xanaa gisoo ko ñoom duñ yëngatu su waxee ñu ne xamuñ jot fa ñuy fen fukki minutes sax man nañ koo def ci bés bi xam nañ joti jigéen xam nañ joti kool jigéen ak dem di xéeg jigéen ñi surtout kat yi mel noonu ñoo ko tey fa ñuy fen jox leen vidéo bi góor ñi mel ni yëpp tout dalee ko ca président yaak ñoom ñoom ñëpp jox leen vidéo bi góor ñi xamee biir yu rëy yëpp te xamee jabar wala bugg a am jabar xaaral ma seet suma alam joxe leen vidéo bi dégg nga ko sa biir bi fay wàññeeku boo tëbee xaka defi ci gisoo ko fay wàññeeku jox leen vidéo bi góor ñi xam yaram te xam jabar wala góor ñi bugg a xam jabar yaram benn jim mënu ci ñoom dara duñ dem jim man maa man ci ñoom dara jox leen vidéo bi séddoo leen vidéo bi ñëpp bu jigéen la séddoo ko rek jox ko jigéen ñi rek ba tey vidéo bi dana ñëw ba xegg si góor gi eh? joxe leen vidéo bi tapoté ko te joxe leen vidéo bi te tapoté ko def leen ko seen TikTok yi def leen ko seen Facebook yi def leen ko seen WhatsApp yi fu ne te continuer di tapoté vidéo bi eh. very serious vidéo bi du caaxaan de góor ñi mel ni laaj ko seen jabar yi jabar yi duñ leen di mënal dara waaw dara lañ doon mënal jabar yi loolu mooy dëgg gi na góor ñi jóg faju ji. Keep tapping and sharing. Thank you. Give this video to anyone. Put it on your Facebook, your TikTok status. Sorry, your WhatsApp status, Facebook status. Share it. I'm targeting everyone, but mainly men, especially men who are married or want to get married. And they have a tummy worse than mine. Why they want to get married? Why? They should just get married to their tummy, hence they're not well. They love food more than anything. They had to take the tummy out or they leave the wife alone. See the video. borom biir yu rëy <laughs> waxee ne nga xam yaram yow tam at least man xam naa ko moo tax ma jóg suba teel gii di def nii mënoon noon toog xam suma kaas ak mburu xam suma mburoog bër meew ko bam saf ma diree ko di xàppati waaw waaye defuma ko de ma xëy tàngal ndox mu tàng def ci mu sung fi mbuma nebedaay naan ko ñëw fii ak suma ndox di tëb kon man xam naa ne maa xam yaram ba pare jarul nga di ma ko wax maa ngi ciy def dara yow mi xam yaram te di nag ne mbapp yow laay wax nga jóg fi ne mbaa nga dee ñu jóg ñu ñëpp jóg leen na ñëpp jóg everyone get up right now keep tapping and cheering everyone have to get up right now right now and do exercise the whole world have to get and do exercise right now right this minute right now. Keep tapping and steering. keep tapping and steering tàppate leen te na ñëpp jóg góor ak jigéen even the women everyone even the women everyone have to get up keep tapping and searing bu leen bàyyi taaf séddoo ba tey continuer di ko taaf di ko séddoo ya see boo ngeen séddoo ko ba pare séddoo xaat leen ko huwa te bu leen tayal si séddoo bi ya huwa lii du caaxaan motiver nit pour mu def lii du caaxaan lii dafa métti surtout borom yaram li dafa métti moo tax nañu duñ koy def façon ngi lay bu ne nag danañ ko xut pour buñ ko def façon ngi lay bu ne xaw ma jot ma bisi suma tànk yi métti mag la hee kii dof la hee lu ne danañ ko wax ok lu ne rek danañ ko wax yee ñoo la gën a xam jot fukki nii rek si bés bi sax nga def li fukki minute rek fukki minute rek ye time bi ñuy spend duñ nelaw ba benn waxtu ñaari waxtu ah suñ demoon nelaw fukki waxtu fukki waxtoo benn fukki waxtoo genn wàll te a xeexu ndax duñ xam benn fukki minute bu ñuy defee lii eh te right now ñu bëri ñuy toog di seetaan lii ñu ngi toog guys wala ñu ngi tëdd ok ñu ngi tëdd guys right now ok ñu mel ni man wala ñu ma xëpp xëpp ma biir muy góor wala jigéen right now ñu ngi tëdd ye eh? jógloo nit mu exercice du caaxaan ye eh? bës leen vidéo bi te tappate ko te seddoo ko ye eh? dee leen ko tappate di ko support bu leen yàccaaral rek bu leen ma bàyyee liggéey man bu ma waxee ba dee sax du tax waaye foos ngeen def liggéey bi yéen tam tiiral tànk yi yee surtout boo diisee waaye ngay acharné boo ko defati tànk yi fay métti tànk boo du yëngatu ok doo xam ay vitamine sa yaram bi ah ngay xam xoom yu métti man xamoon naa ko laajal nit ñi laajal nit ñi rek ndax man lu ma dal ma leen ko dee waxee pour ngeen jàng si laajal nit ñi xamoon naa ko ñeent fukki at ak ñaar laa xam fi ne nii rey su suma xoom yi mi métti ñeen fukki at boobu suma ko xamee si lay xam wala ñeen fukki ak benn bu yàggul nii rek ah maari saa jàng dem si docteur yi mu ne ma dara jotu la war a yëngatu lekk-lekk gu baax si yaram te yëngatu ak man am joo li may lekk-lekk gu baax si yaram yëpp ndeke suma yaram bi xamul ay vitamine di ma jënd vitamine di per yi ndax fii xamul naaj moo tax ba pare di yëngatu tànk ya ne xuum ya ne kerek ma mel ni gune gu ndaw fi ne suma xuum yi yëgatuma si dara te nit ñu bëree ngi xamee xuum yi le xuum yi dara jutu ko bas leen ti séddoo rek leen ko rek su ko tàppatee rek te séddoo yee man xam naa nu may def xam naa nu may motivité suma nit ñi yee su ngeen tapoté te séddoo rek man xam naa nu may defee waaye ngeen di tapoté séddoo ok just tap tapoté séddoo I will tell you in English keep tapping and sharing buum gi baaxul daf leemu rek bu ñuul bi laa war na indi day leemu rek fa tàng xolle mais ni Macky Sall di kodalu rek di banko waaw di banku rek ni Macky Sall muy suuli xaay dos sum gi la waay boobu du buum gi de man la ngaa diis di tëb sa yaram yi miinu ko te yàgg baram koo miin de you waaye doo give de doo xaadi doo xaadi ye métit yi fay gën a da moo nga def ko da moo les métit da nga def ko les métit ye métit yi gën a wàññeeku tappate leen rek Tap it in. soo indi exercice nga tàngal ndox di ko naan ndoxam kese waaye nga tàngal ko ndoxam kese bu mu xam sukk mu xam dara waaye nga tàngal ko tuuti yaay fay tax gere gi di seey fa ci baax bës de gi nga góor ñi xam biit ak ifin jigéen ñi xam yaram xam biit ñun ñëpp fay war a jóg yëngatu du pour gu yaram wi ak biit bi wàññeeku de fa baax ci wiir gu yaram lool ak fan wu gudd dafay tax sa yaram wi rafet di melax waaw ku ko bañ kenn bañu ko ku ko defut ngaa tayal lay yi ngay wut nag pour bul ko def soo wutoon lay yu mel noonu pour nga def ko ni ko noonu nga def ko lay yi ngay wax ne maa nangam maa nangam maa lii ki laa lii ki ma ko def soo wutoon lay yu mel noonu ne lii ki laa dana tax ba ma def ko nangam ak ki nangam dana taxaw ma def ko nu ko noonu nga def leen rek tapoté leen te séddoo man kenn du ma mën a motiver nit ñi may taxaw fii di wax rek waaye mënumaa def liggéey bi yéen ñi xattaaral foofu xam na si yéen ñoo xam ne amee xóllóoral sorry xattaaral mooy xattaaral xóllóoral mooy xóllóoral yee sorry mën naa xam ay mag ñu may seetaan bëgguma wax mag ñi xattaaral you know subhanallah yéen ñi xóllóoral laa wax mag sax fa war a def li mag mu ko defut fa rep mag mu repp na toog ñu di ko toggal ceeb muy lekk <laughs> bu deexee ñu lekk ceeb ca dëj ba fàtte ko du comédie de xëy na xuma benn mag mu dee de moo tax ma di leen ko wax de waa Aja lu nit wax ngeen ne war ta wax loolu waa ngeen a xam joti naa li muy wax du noonu ak ki naa la koy waxee ak nii ki naa la ko war a waxee ak mais ni borom yow boo ko defee boroom nga koy defal bañ sa bopp nga koy defal wala borom toogal di xaar borom raay la fóon la ci tànk fóon sa tànk yi nga sug a jóg bañ man maa la wax ne li may def nii fa neex lu dàqoon lii toog naan kaasab café nguru taxal vidéo yi way way yi fecc ko enjoy lu loolu moo dàq lii waaye maa ngi nii jóg lekk defuma dara di yëppas yëppas yi tëb waaw baax na acca leen toog leen bu leen jóg de <laughs> toog leen mel ni bu ngeen jógee man ngeen jóge di defante xam nga ngeen a mën a defante ba confis <laughs> toog leen de <laughs> ñuy waxee du noonu day forcer nit ñi oh my god du exercice rek te ba nit mu ngi xas nit ñi hee waa ràng leen de ràng leen rek tàppate leen de yéen ñi xam li may wax yëpp te séddoo te seetaan yeneen nit ñi siisu yeneen nit ñi yëngal seen bopp man démb rek ñaari nit suma followers wax nañ ni man maa tax seen yaram yi wàññeeku man maa tax ñu gëm seen bopp kenn ki ci digg live bi dugg wax ko keneen ki wax ma ko whatsapp bu muy call di jënd yére fuddan la doon jënd soori wax ma ko fa may seetaan lay ko waaye fañ bugg dugg ñu bari duñ mën a dugg di wax loolu maa tax yaram yi wàññeeku mu ne maa tax mu gëm boppam kii duggi démb mu ne mu ngi ci jim bi maa tax mu dem jim tam man maa tax mu gëm boppam te guneeg bitim réew fii la ki ma ko doon wax noonu ci téléphone bi démb guneeg Sweden fii la guneeg jigéen ko xam ñaar fukki at ak dara xamewut jëkkër dara dëkk moom kenn di liggéey nekk Sweden fii laaj ko nit ñi seetaan Fatima fay comment mën naa am tey sax mu ngi comment mu ne foo may seetaan bay nelaw suma vidéo yu bari yi ngeen may xas xam ñu muy jëriñ de ñu may kool ci ron xat yi yëpp mu di leen jëriñ ñoo tax ma di ko def moo tax faale fu ma xay yi may xooxee dof yëpp dégg nga ko mu ne man maa tax mu mu jàpp boppam di xaar ba xam jëkkër du nangu kenn tëdd ak moom di liggéey ci dem jëm def boppam ni toog laaj ko nit ñi démb la dugg ci live bi di ko wax fii bi ma doon féexlu ci biti fii te fii la juddoo bitim réew yéen ñi may xas yëpp ma tat ngeen a xamee ci koy xaj lu baax lu ma wax ngeen def ma dof di ma xas waaye aka nit ñu wet ñooy jàng ci man man lu baax lu ma lay wax ci expat yi laa ko xamee yu ci bëri mbala mu doon suma expérience wala mu xam man la ma xam ko ko expérience waaw man du may tëb rek di gëm ay nonsense mel ni waa askan wi xam ngeen ma yee waaye ngeen a soxota miin tuutil ni tab bañ ma nag xaw ni ngeen ma bañee du leen jig wala lii lum do man maa ñëw pour ngeen dee maa ñëw pour ngeen gudd fan ah bu set ma di leen wax ni ngeen di def ba gudd fan ngeen léegi tey gune yabaatey jóg sa foom bu ñaaw bi yéen taxaw leen ba ngeen biit ba wusin su ngeen biitee ba seen biit bi mel ni mbott mu sibut ah ba guur ñi bon ñi may xas jàmbuleen leen keneen ku biit ba maasalaw ngeen xam walla man ngeen di wax naa sa foom bu bon bi le foom bi faale xuma ko danaa ko yëngat ba mu def boppam nit mu ngi tàmbali wàññeeku ñu ma gën a bon bon foom nag ñoom la seen fom ba ne cocc fi mu ne ngir yëngatu surtout américain yi lee tubaab yi lee bu ñu wàññi yaram te fekk ñoo rawoon seen biit ba di lang ba ci seen xóom ñooñ <laughs> ñooñu laa dee folo <laughs> lii defoon naa ko ay xat ba suma biit bi maasaloo waaw fi nii mu ngi tàmbali maasaloo ngeen a xañaanta bon bës leen te seddoo te def seen bopp nit baax na li ngeen di dëgër bopp te soxo te mën a defante te kon fis <laughs> seen yuur gi fañ ko ciment <laughs> ngeen a raw am yow <laughs> seen concret yuur gi ngeen xamee nii ah wallaay wallaay léegi duma waxati sax ma leen di seetaan exercise duma mën a exercise di wax bu leen foog ne lii muy tuur de da ngay wax ne léegi tey Ami Diop waxate du ma waxaat léegi ok gars yi ba si kanam ay promise séddoo <laughs> leen te tapote rek keep tapping and sharing I'm not gonna talk for a minute okay I'll take break from talking now focus. Wow.

Macky Sall jógal def nii li may def nii baax na yaag aaraaw baroog mètre kilomètre sa ministre yi mel ni yéen seen ministre yi mel ni yéen quoi Quoi Quoi wooy ma loxo yi my hands my hands suma loxo yi suma loxo yi suma loxo yi suma loxo yi fay métti ngi métti de it's paining it's paining it's paining my hands are paining my hands are paining my hands are paining They're oh, painting, whoa, they're painting. They're painting, guys, they're painting. Wow, ay métti way yàgg naa tee way mu ngi métti I meant to do 100 I don't know how much I did anyone know how much I did why I already did some even before Ooh, My arms. Ooh. suma loxo yi suma loxo yi suma pëdëgab loxo yi pëdëg yi gerees gi pëdëg yi gerees gaa ngi metti pëdëg gi fi gerees gi ne noonu woy gerees gi dee ma noppalu woy gerees yi seey leen xamuleen njëriñ yi ne Macky Sall woy sey leen oo sey leen oo yaay yooy sey leen the fat had to melt the fat the fat had to melt by force I'm not going to give up woo yaay yooy my arms are paining you know where the fat is you know the fat part of the hand extremely painful yeah guys <laughs> unreal why The fat part. Why the fat part? Fat part is dying. Yeah, let it die. Let it die the hell. Let all the fat die the hell. Why, yeah, yo. Fat is dying, guys. Fat is dying. It's I can tell it's dying. Why? I meant to do Anyone know how much I did? How much did I do? Am I dead? Why am I dead? Am I dead? Why? ku xam ñaata laa de na ko téeméer laa war a def waaye defoon naa ba pare waa yaay woo yaay waay anyone know how much I died? Any idea how much I died? Anyone knows? Mm. Why? Why are you? Why, why, why, why? suma bopp bi suma nijaay moom ma koy xaaye faale suma bopp bi gars suma nijaay moom ma xaaye boppam leen wóoy <laughs> suma loxo yi du nangu ma def loolu my arms won't allow me to anything now yeah they're dead they're totally dead and I'm not ready yet guys I still have to work out I've not done the dumbbell yet Hooah! I mean the kettlebell anyone know how much I've done ngeen ndax def naa téeméer ci bant bi ma doon yëkkati téeméer laa war a waaye ma ko njëkkoon a yëkkati nag yëkkati xaar ko noonu def def naa loo bu téeméer moom léegi tàppate leen te seddoo rek Can you guys and share please? Yeah. I have to do the kettlebell now, yeah. And I have to do the the jumping jack, yeah. I mean the other jump, the squat jump, you see. You know, squat and jump. I have to do that. And I have to do the kettlebell, the squat kettlebell and the other kettlebell. I have to do three moves with the kettlebell, yeah. So I have five moves like it, guys, yeah, five moves. I've done one, two, three, four. I think I've done four moves already, yeah. Yeah, skipping, jumping jack, and the two moves with the stick. Yeah. So I've done four moves. So I have five moves left. I normally do five to ten moves. Yeah. Yeah, I'm gonna do ten moves because I'm gonna <laughs> do ten moves. And each one I always do until I'm dying for each one of them. <laughs> oh my god. keep tapping and sharing bës leen te séddoo fi mu ne nii def naa ñeneent def naa tëb bi ak buum def naa tëb bi ak euh, loxo yi ci kaw nii you know mm-hmm. soo léegi def naa bant bi si loxo yi ci kaw ak bant bi nii soo léegi maa war a def jeneen juróomi muuf ndax juróom benn mooy bi may def ci suuf na la mooy juróom benn juróomi muuf yi ma war a def benn bi mooy beneen bi mooy nii beneen bi mooy nii ok and then maa war a def move bi ok so loolu ñeenti move la and then ma dem si suuf fële def nii muy juróom waaw plus maa war a def nii tam juróom benn lool si suuf léegoo lees moo fa neexee may def yeneen yi noonu su ma tànkee nii wala def tànk bi nii wala soo li ma dee def daf dee ëpp fukki muuf fukki muuf li may def fa ko ëpp te benn bu ne ma koy def bay waaj a dee laa ndeke man mbaam laa laa illa lii tax kay ñaari waxtu yenn yi ma di ko xam si exercice léegi bés leen te séddoo rek ku foog ne dumay def dara borom fay foxantu te fay fen all my haters that say I'm not doing any exercise, they're lying. They cannot do what I'm doing. A lot of them cannot. Keep typing and sharing. ha anyone that think that was nothing <laughs> let them be my size and my age and try it before they will talk <laughs> my haters you can't do this many of you can't do this so man seen baay la ma hiita seen baay la ah! te lekkuma maa xiif démb maa teel a reer ba tax ma wik maa xiif ma war na lekk saraas walla dara waaye maa ngi yëg graisse yi ni ñu méttee ni graisse yi dexee tas guut nañ dee waaye maa xiif démb maa ngi reer ay ñaari waxtu benn waxtu genn waa jëm ñaari waxtu si laa reer waaye si bu guddee ay boor yi juróom-ñetti waxtu maa xiif ma defar buy kaasa buy buy ak lem ak ndox bu tàng naan ko moo tax ne ma xiif bay waaj a dee bés leen te séddoo leen tapate keep tapping and sharing guys war a noppaliku léegi yaay ah I'm gonna take a break for a wee bit ah wah wah wah Yes, I had a baby on my back. I'm light on the baby ami ami xaw ma waay ok xaaral ma jóg guys yekkale ok tàppate leen te séddoo rek yéen su ngeen defee seen wàll ci liggéey mooy ngeen tàppate séddoo man danaa de ma wàll ci liggéey suma biitam mbott bii moom laay dindi te nit ñi biitam mbott ni man yëpp ma di leen xooñu ñu dégg ngeen ko mbott mi fay dëñ ah ko man suma mbott maa ngi dëñ barki salaatu faatee bu may sangu may kontaan bay fecc sa wana wa gi mbott mi ni muy reese waaw gis suma yaram wi sax fekk su may gën a rafet di gën a dëgër xam nga suma yaramu yaay laa xamee suma maam suma maam laa gën a nuru sax ye suma xam na yaram waaye suma maam moo gën a nooy la yaram sax ye yaramu nooy dara néew si nit ñi pañ bindoo différent bind ye waaye lekk yi bon ak yàq ak ñàkk yëngatu ko koy def tamit ye léegi waaye soo yëngatu fay dëgër te wàññeeku te rafet te dëgër loolu mooy dëgg gi ñàkk yëngatu gee ko waral it nañ waxante dëgg waaw kon nag bës leen te séeddoor tapote leen kon nag fa ñuy yëngatu bu ñu wax ne yaramu nooy laa xam rek jeeg laa wala maa nooy rek das it non du pour sa yaram wi dëgër rafet déedéet is because fay joxe fan wu gudd joxe wér gu yaram joxe happiness sa dafa xam benn chemical bu sa bopp bi sa yuur gi release sa yaram wi release ko soo yëngatu di tëb di sonna sa yaram bi ak a dox ba sonn def dara ba sonn dëgg ba nga yëg coono bi ba ñaq ba sa yaram bi sa dënn bi fit fiti yëg coono bi fa xam chemical yi muy release chemical yooyu fay tax nga sant yàlla sa bugg àdduna si in a positive way ba mu boo gisee garab yi mën a kontaan xam na yéen ñu bëri ngeen di ignore garab yi duñ leen duñ leen tax kontaan dara asamaan seeg taw bee ngelaw leeg ignore yëpp focus si àdduna problème rek kon fis loolu yëpp ñàkk yëngatu fa koy def ñàkk yëngatu fa lay delloo si si necco because yàlla fa ñu bind pour ñuy yëngatu comme ni rab yi wëree di yëngatu ñun doomu aadama njaay loolu lañ war a def ñun ñoo mën a defar oto tax ñu ne duñ yëngatuuti mën a defar euh, dàll tax ñu ne duñ laalati suuf te laal suuf fa baax si ñun mën a defar juus tax ñu ne duñ laalati ndox ta ndox baax si ñun mën a defar làmp ak internet tax ñu ne duñ nelawati guddi te nelaw guddi baax si ñun yàlla nu mu defaree asamaanam seeg suuf si boo ko ëlbatee dooy xam jàmm dooy xam fan wu gudd dooy xam wér gu yaram. fix yow la laasis ban laasis bës leen te séddoo ko yàlla ni mu defaree si boo ko ëlbatee dooy xam fan wu gudd dooy xam wér gu yaram te doo xàppi sama benn waxtu bi sax jeex na sama benn waxtu bi jeex na yee waaye may def bii su ma paree ñu soog a dem fële yee yàlla nu mu def xadunaaw si moom la doomu aadama njaay yëpp wecci léegi taxal seeni làmp toog duñ nelaw bu yàlla jëlee jant bi dugal ko ne ñu hey ñu ne ah mu ne tëddi leen guddi na ñu ne ko déedéet yow ngaa dof ñu taxal suñ làmp bopp ñu continuer duñ tëddi toog di dëgër bopp yi defanteeg yàlla moo tax ñuy dee lii scientist ya ko wax du man de docteur yi study human beings jàng lu tax nit ñuy gaaw a dee léegi nit ñi duñuy guddati fan ba xam téeméeri xat ak lu teg ñoo wax ne ñun ba tey war nañoo mën a gudd fan ba xam lu ëpp téeméeri xat ñun ñooy rey suñ bopp nit ñi ne xaa ñu wax la lii yëpp li ma lay wax yëpp demal jàngi ko bu yemee fenn danga ko xam ñu ne nit ñi ñooy def bu yàlla jëlee jantam bi dugal ko ne doomu aadama njaay yi tëddi leen parce que noonu lañu ñu bindee noonu la ñu programmé ba pare mënuñ ci dara fa war a tëddi nelaw ñu ne ko déedéet duñ tëddi taxal suñuy làmpa suñu internet toog guddi ba bët set ñaari waxtu ñetti waxtu doo tëddi xam na ñoo xam ne ba bët set koroj duñ tëddi dañu xaana ba yàlla indi jantam bi xeeñu ne ñu jóg leen xëy doomu aadama Njaay ñu ne xaa mu ne bët set na suma jant baa ngi nii fi ne ma niital leen nag mu leer ngeen gis ni ngeen di de ngeen jóg xeexu nag gis ni ngeen di def ñu ne ko déedéet ñu nelawuñ woon ba nga buggee ñu nelaw waxtu wii fi mu ne nii la ñuy nelaw mu ne xaa ñu ne ko waa daal di tàmbal di nelaw ci bëccëg gi mu di ñu seetaan nelaw bëccëg xaxe mu tax nelaw guddi kuy liggéey guddi moo tax daf dee xam problème yi fan wu guddi ak wér-gu-yaram ak happiness waaw laaj ko nit ñi liggéey guddi ku koy def soo xeboo nga ba ko wuti liggéey bëccëg koo xam ne ne yow la neex ngay toog nag ne yow la neex nga xaal ko di toog guddee ba seet ndi ngir ay vidéo ñàkk fayda wéeroo te ngay xaru nelaw guddi moo gën fuuf ci yaram dan nelaw bëccëg yàlla nu defee ni doo ko wecc de comme ni ndox gënee ci yaram dan coca cola ak fanta yi ngay naan noonu la nelaw guddi gënee ci yaram laaj ko experts yi te nelaw guddi bi ci gën mooy nga teel a nelaw sooy teel a xew sooy xew ñeenti waxtu juróom sax baax na waaye na nga teel a nelaw waaw ndax bu jant bi duggee xees noonu ba nit ñi julli tamit ba julli gexe time boobu nga war a nelaw nelaw yi ngay njëkk njëkk a nelaw yi doo si nelaw bu njëkk boobu balaa min wi moo gën ci yaram sax te doomu aadama njaay xamatuñ ko fi mu beneen doos bi ci topp boobu baax na waaye doos bu mujj bi bi ngay nelaw ay ñetti waxtu ñeenti waxtu boobu xamul njëriñ si yaram te boobu la nit ñi yëpp nelaw léegi ngeen ba a jàngi xam-xam rek ngeen toog ngeen a rep <laughs> lekk yu bon chemical doo yëngat sa yaram bi doo nelaw te boo feebaree dem wuti sëriñ nag sëriñ baña ne noon ñi nag lekk ceeb ba biir ba fees moom muy xaru de ne sëriñ yu bari fa ñuy xaru ñoom it xamuñ wax ni su ko defee ñee la waa fañ la liggéey fañ la sëf sa tànk yi métti sa dënn bi sa stress bi xanaa xamoo ne stress sax sëriñ yi fa ñuy wax ne fañ liggéey nit muy stress stress koo xam ne nit ki fa naqati àdduna te xamul nu ñu koy manejee ah foo ko si naqari instead of foo ko ci sant yàlla barki salaatu faatiya sëriñ yi fa ñuy wax koog ne fañ ko liggéey moo tax mu amee naqat ndax yéen waa askan wi dégg ngeen li may wax nii nit ko dund naqat yi àdduna ba tax mu xamee naqat xamul nu muy manejee naqadam ba yaramam bi système bi système bi yëpp miin naqat di opéré si naqat rek sëriñ ba fa ko mënta fajam fay fenam la léegi sëriñ ba fay wax ne dañ ko liggéey kon léegi liggéey boobu bu ngeen ko def Macky Sall ak ministère bi ak Adama Barrow nguur gi ñuy sonnal ngeen liggéey leen teg leen naqat bañ daw xabal ñu def taati neen si mbedd mi daw mbala ñoomu neen ñu songoo di reyante di xeex kenn ku def futti sa mbubbam morom génn office ba ku sa biti xeex nit ñi dugg jël office ba du ngeen def liggéey boo sëriñ yi ministre yeeg président yi kon yéen sëriñ yi laa wax de ndax seen liggéey yëpp ñu ngeen di gis yëpp pour nit ñi rek la pour local nit ñi liggéey yi dal nit ñi yëpp local nit ñi lay dal du dal président yi ak ministre yi ah ok I see nonsense sëriñ yi ñoo tax nit ñi du faju ci askan wi koo xam ne du yëngatu te du nelaw guddi looloo ko feebar seriñ yi ne ko fañ na liggéey wala rab am telling you this nit ñu bëri tey ñu ngi feebar di gën a depress nag gannaaw bu la sëriñ waxee fañ la liggéey ngay gën a depress nag sëriñ ba defal la noonu seen garab te yow doo wér li la daal du wér du wér nga xam ne sëriñ ba mënulaa faj nga ne xaay man de ki ma liggéey rey na xanaa moom sëriñ bi mu dem rek kay sëriñ sëriñ yi may dem yëpp mënuñu maa faj is because kenn liggéeyu la sëriñ ba la ko wax fay fen moo benn sëriñ bu la mën a kenn liggéeyu la yaa war a wecc ni ngay xalaatee yaa war a yëngal sa yaram wi lekk lekk yu baax te di nelaw te sa yaram wi miinu ko fay yàgg bala koo miin ngaa war a naxante sa yaram wi ba miin loolu waaw waaye doo ko def ngay dem ci sëriñ ba ñu la fañ la liggéey nga toog defar sa café di naan toog loolu moo gën a yomb nga jël sa problème yi jiñ ko jiñ ko jinne yeeg rab yeeg nit ñi ne ñoo la liggéey moo gën a yomb dan yow nga takkul sa takkul sa problème yi faj ko ndax du wecc ko ndax weccee ko yomb askan wi ku la wax ne nit kuñ liggéey mu jàpp ko moo wax nu ko noon nit ñëpp dee nañ wala ñu dof surtout président yeeg ministre yi konoon ministre yi président yëpp def nañ taati neen ci mbedd mi daw di yi daw ku ci xam góor yaagu tuuti nga gis ko ku xam góor yaagu rëy nga gis ko mu yalang-yalang yi daw yéen loolu du leen di jaaxal ne Afrique seen président yi seen ministre yi yëpp bu doon Afrique seen mën a liggéeyee konoon ñoom ñëpp def nañ ci mbedd mi yalang-yalang yi daw liggéey buñ la ko defee du la jàpp du ne yow sagar nga ku ñëw rek liggéey la mu jàpp la doomu aadama njaay du caaxaan yàlla boo ko gëmee dëgg kenn du lay mënal dara suñ la koy defit kon du la mënal dara waaye nga gëm ne yow gologul la ko gu ne gum rek mu dem ca sëriñ buñ buñ jaale bu ne mu def la lu ne waaye da xel nit di believe loolu sax di gëm loolu you kuy gëm loolu wéru who the hell are sëriñ and these nit yi nga xam ne golo gu ne ñu yàq golo gu ne dem fa soori ñu yàqal la nit golo gu dem rek ñu yàqal la nit nu ko noonu ñun ñëpp dee nañ wala ñu dof suñ ministres yi dee nañ wala ñu dof ak président yi xamu leen loolu seetlu leen li ma leen di wax nii de exactly nattu àdduna yu lay dal dafay dal tubaab yi fii tubaab yi nga xam ne duñ yëngatu dafay xalaat négatif di stress fa ñuy stress bay màndi stress bay xaru feebar ngir ñàkk a yëngatu comme yow ku leen di liggéey sa tubaab yooyu yaa leen di liggéey wala la ngaa liggéey tubaab yooyu yow nonsense waaye askan bu feebar moo naqadee waxal fi mu ne nii lu may wax nii ñu bëri sax ñu ngi naan hey moom dëf la gëmut liggéey hey kii fañ ko liggéeyul wala hey kii na ko yàlla mosul ci liggéey hey kii li gëmul liggéey hey kii gëmul liggéey fañ ko liggéeyul man maa laa ne liggéeyuñ ma <laughs> kon liggéeyu ci askan bi xamul waaye man maa gëm ne ku ma liggéey sa yuur gi ngay liggéey man Ami Diop loolu mooy suma gàllaay ku ma liggéey sa yuur gi ngay liggéey ndax xamoo barkeeb ma liggéey la man ku ma liggéey ku ne ku ko xamul barkeeb man ma liggéey ko te loolu mooy suma gàllaay te gëm naa ne yàlla ba may defar tàgguwut la yow pour yow golo gu lakk nga ñëw yàq ma gëw ma ne mënal nga ma dara sooy dem sëriñ man naa laa jox suma kawar yoo soxla yëpp nga dem jox la suma tëflit yi sangu jox la ndox ma loo bugg rek nga dem ma sëriñ ba yàgg sa sëriñ ba yëpp ma ne leen yéen laay xaar gaaw leen te loolu mooy suma gàllaaj bi ko que kun fa yakun ma bind bind sëriñ ba moom laa xam ne moo may kaar di kaar sëriñ ba di la kaar yow waaye lii nga tax ngeen feebar nag te du ngeen lekk-lekk yu baax du ngeen yëngatu du ngeen nelaw ba seen yaram bi yëpp yàqu plus stress yu bëri ba seen système bi yëpp yàqu ngeen dem ca sëriñ yi ñu fenal leen nag ngeen toog di presse dee ba fi seen njaboot yéen jéegi askan bi yéen maire yeeg jéegi yeeg paa yeeg askan bi lii rey nit ñi léegi ok ñàkk a def lu war a def ba pare dem ca sëriñ ba mu ne la fañ la liggéey nga gën a stress nag gën a jaaxle nag nga toog xal ko toog dee li yàgg naa ko wax depuis day one depuis Facebook maa ngi wax lii nag te ba tey askan wi a ngi def li duñ yëngatu duñ lekk lu baax duñ nelaw ba pare ba tey ñu ngi dem ci sëriñ yi di lay wax ne fañ la liggéey moo tax tànk yu métti tànk tànk yu métti liggéey la <laughs> yu métti kon fañ ma liggéeyoon moo tax suma tànk yu métti suma huum yee léegi ma commencé di naan vitamine D commencé di yëngatu comme ni ma ko docteur ba waxee rek suma ma liggéey ba wét kon <laughs> xam ngeen lan la bu leen ma wax loo waaye <laughs> kon man mi suma xóom yi doon métti fii may yuuxu ci vidéo fàttali ngeen ko gars <laughs> naan leen suma xóom yi woy maa naa suma xóom yi loolu baax na ne waxoon naa leen ko rusuma woon pour wax leen ko man li ma leen di wax yéen yi fa ci baax de yi nga nag ma leen ko waxutoon tey nag ngeen naa Ami Jóob fay fen su fekkoon ma doon muñ métit waxuma leen ko ci vidéo ndax du waaye ma leen ko daan waxteen su may jóg sax ne oy suma xóom yi woy dee naa maa gàd naa suma xóom yi fay métti xamu leen ci pexe di leen ko wax ndax du moo tax bari wax baax na yenn yi de fi ne ni gisoo ni ma leen di dimbalee di leen xee ci loolu su noppi woon di leen ko rusa wax moo tax man naturel gi ma ne fa baax akay wecci askan wi nag su ma naturel gi ngeen may xasee akay yéen a ci war a sant yàlla ni ñu bëri laa ciy jàngal àddina yéen féeg yi may xas ne maa naturel te dof ak yeneen a ma ci war a sant yàlla bu ma féekoon ni yéen ku ñuy dimbale tey suma tànk yu métti yooyu su ma ko muñoon waxuma ko ci caméra bi suma tànk yu métti ma ne pat ne maa bañ nit ñi foog ne maa màggat tànk yu métti fa tax a màggat ñeen fukki at nga xam ko sa tànk yu métti ñu bëri fa ñu am tànk yu métti ca fekk xamuñ sax ñeen fukki at lekk yu bon te doo yëngatu xamoo vitamine D xam stress bu bëri yëpp fa koy def te doo nelaw yëpp fa koy def mbagg yi métti fa koy def loxo yi métti wala biit bi sax wala dënn bi fees del ak stress di métti tànk yi surtout home yi home yi number one mooy ñàkk vitamine D enough ñàkk jëkkatit fa koy def ndax loolu fa ay vitamine góor gi li liy génnee ci moom bu dee duhut góor ak caga gu feebar gu siddaa kay moo tax may wax góor ak nit lii génne ci moom ay vitamine la ay ay minéral ak yow ci sa bopp nga lekk-lekk yu baax jënd péri vitamine naan ko te yëngatu soo xamul jëkkati nga di jënd prévitamine naan ko te yëngatu noonu laa def sa xóom man suma xóom yi ba tey fu ma xéem ni suma xóom yi la wétee yéen man de suma xóom yi ni mu wétee ba tey fu ma xéem guys seetlu leen ko xóom yi jékkee-jékki rek ne yereñ may tëbaka def lu ne <laughs> te xóom yi ñu bëreen ko xamee ay xat nag ñu naan leen fañ leen liggéey ñuy naan garab di dépresse ñu naan leen fañ leen liggéey te dara jotu leen gore nam lii daw na yaram dara jotul leen fa ñu war a jóg di yëngatu ah buñ tëbut sax nañ jóg di yëngatu def ni may def nii yeneen yeneen yëngatu yi may def nii wala ñuy dox waaye yëngatu buñ def rek baax na ye surtout bi may def ci suuf noonu bi ma dee def ci suuf fële ah tey lekk naan mbu mu nebe daay lekk-lekk bu baax si yaram naan vitamine di di génn xam naaj waaye yéen ngeen di daw naaj de sutu Afrique surtout maire yi xeesal xaw duñ jege naaj loolu moo leen feebar Afrique ñàkk a laal naaj surtout yéen xeesalkat yi loolu moo leen di rey bu fekkee bay seen bopp jaral na leen ngeen dee fàtt ñu suul leen wéru leen lu dàq nga dund ba xam téeméeri at ak lu ko ëpp toppatoo sa yaram wi soo xamee ay sët ay jar ay ay ñoo xam ne you know yow leen mag nga yedd leen digal leen ci àdduna xuuf leen lekk-lekk yu baax nekk mag mu wér ah di mën a dox mën a yëngatu waaye mag mu ne mbàpp du lekk-lekk yu baax feebar dee di naan ordonnance rek ngir stress ak lekk yu bon ak sëriñ yi di ko fenal naan ko fañ la liggéey yéen li leen dal fa may naqadi du ne ma leen a yab de askan wi li ko dal moo may naqadi different different stuff li dal askan wi yëpp laa xam man Ami Jobe moo tax ma mel nii dara jotuma de maa xam askan wi rek te mbiram naqadi ma askan wi fa ñuy dee ndig ni mu mel niñ mel nii te waruñoo dee ngir askan wi ni mu bonee te confis dof te bëri yu bon sëriñ yi suñ number one ennemi lañ sëriñ boo ci gis mu ngay dawal oto xame kët yu mel ni ku dëkk Amérique sax du kër yu ngir fen kuñ gis ne la ngaa xamee rab ngaa xamee jinne sa yu sa sa sa nangama la liggéey jinne yee ca ker mango ga ñoo la langaamu sëriñ yi fenal ne nit ñu ne fañ lañ fene ñu fa ay jinne yu jonkoon fu ne ca xaw xaddam néeg ba la jinne fa asamaan sa la jinne yaa ngi yandaantalu di ma mbéj man ami jóg mii fi mu ne nii waaw suma bal bi may footballé xaw ma te ree sax jinne yaa ngi ci langaamu fi mu ne nii di ko xëccoog man sëriñ yii allah xiraa bu leen yàlla bu xàllaaxiraay yéen sas yéen xàjjana du ngeen ko séen sax yéen nit ñi ngeen tax ba du nelaw guddi nit ñi dee feebar war a lekk-lekk yu baas yaram yëngatu naan vitamine D ngeen ne leen fañ leen liggéey nit ñam ba paaral toog ba dee te fekk ngeen di fen ngeen di jël xaalis ba takkee ko ay ñaareel ak ay ñetteel yéen yéen a raw doroog dii la li ngeen di tayal te bon askan wi ak a tàng xol fa kaw kawe takkoon fis dof te buggul boppam te du déglu waxuma sëriñ yi de sëriñ yi ñoo gën a tay li ñuy def feñ ci jëlee njëriñ comme dorog di la rek ne tiis xaftaanu néeg bi sedd te neex jigéen ñi wër la xaalis bi ñëw téléphone yi karakari xaw liggéey boobu ku ko buggut ku ne ngaa gore façon ngi liggéey bu manti da bu mel noonu dégg nga ko waxuma sëriñ yi de sëriñ yi confis confis nañ dof because fañ soxot waaye confis suñ dof de criminal yu mag lañ tax xam lañuy wax nit ñaag nu ñuy piléexee seen géem bi xaw aka ñoo masta géem bi nit ñu dof ñu leen gëm ba fàtte yàlla bind sëriñ yeeg bind la yow yàlla mi lay sol ngelaw li ngay ndokkee booy dem ca sëriñ ba nga fàtte ko ah di xadag dagi dawal sa oto wutali sëriñ ba xam accident dee ca yoonu far noppalu nit ñooñu laay wax ñooy tàng suma xol waxuma sëriñ yi de sëriñ yi xam nañ li ñuy def fay soxo tabbaajo te di ci jële ay millions surtout sëriñ yi Gambie Sénégal fu jigéen gu ne du xeegu ne ñu takk ku xees te rafet wala ku rafet boo fa demee ñu bugg laa takk bugg a nekk yow buñ la mënta takk xéeg la ñoom ñu bëri buy fukk la juróom-ñett yëpp noonu la ñu aka sëriñ yi lee ñeme njaaloo nag ñoom ñu bëri faalewuñ yàlla aka ñooy yab yàlla na surtout sëriñ yu yu yuus alxuraan aka sëriñ yi lee doo xiifarta yab yàlla sëriñ yi yuus alxuraan ñu bëri buy fukk la juróom-ñetti yëpp xiifar yu mag a mag a mag a te yab yàlla lañ li ñuy njaaloo ci bés te buñ paree nag sangu janaa ba ne fetek sol seen xaftaan yi leen ni ay tan yu sibbutu nag ne jiin nag ni asamaan su sibbutu <laughs> ñii nit rek laa xam <laughs> niñ bayee ku leen xam nag <laughs> ku leen xam rek lañ bay soo leen xamee rek duñ xamati xaalis si yow loolu rek la ñuy bay billaay wallaay askan wi waay maa sonn may dem tëdd sa suuf jekkal bala maa dee nag ñu naan ku wax dëgg rek ñu ne dof nga pour buñ la déglu ñu ne di ñu ne ñoom ñooy nit ñi de dof nga hee dof baa ngay waxati hee moom fa dof ak bëri wax hee bëri wax fa tax a dof te yéen a ma gën a bëri wax nag yéen ñu bëri seen noppi ngeen koy féeg surtout sëriñu askan wi fa ñuy féeg noppi de ak féeg doon it salaamaaleykum soxna diw tabaar fa kàlla alhamdulilah jàmm rek suufeel baat ba ba te fekk ak ñoo soxot te mën a yuuxu ci seen jabar yi ak seen doomi yi ñoo mën a toroxal jigéen nag sëriñi askan bi ñu bëri seen jabar yi li ñuy daj surtout xaaxooy laaj ko xaaxooy ñu wax la ko ak ñoo mën a jàmbu jigéen nag ñoo ñu bëri jigéeni askan bee ñàkk fayda wala du mën a protéger boppam continuer di xal ko rek fi jigéen ji fi mënta protéger sa bopp danga nga dee da nga xal ko ku lay as askan bi xaw danañ la jaale kon wala askan bi fa faale jigéen askan bu xeet jigéen bi ak gune askan bi fañ xeet jigéen ak gune ñoom ñu bëri buy fukk la juróom góor yi fi ne yëpp a jigéen ak gune jigéen ñi sax ñoom ñu bëri fañ xeet jigéen a gune bala nga ko xam rek nga gis jikoy naaf fekk ak jikoy xay ñi de askan bi jigéen ji fi gëmul sa bopp te mën a protège sa bopp danañ la suuli nga rey sa bopp xopp sa bopp yàlla jox na la sa yuur gi pour nga protège sa bopp ngay dondal koy xaar mu protège la ñii nit ñoo lay protège waaw aca da ngeen di ami joogu xoon na ko walla aca leen di dof doflu rek di yaakaar ñii bu leen nangu de bu leen nangoo def seen bopp nit di protéger seen bopp toog leen di yaakaar ñii nit ñu protéger leen loof leen yërëm leen protéger leen xoolal ma tekkatoo bi rek sama kanam gi woy naaj waa ngay dem xaw bu naaj bi demee ma dee de fi yàlla doo continuer naaj wi rek looy cancelé naaj wi nii te dooy naaj ñun luñ la def naaj bi ngeen cancel nii te dooy naaj samedi yàlla bi de ah waaw génnal def sa liggéey ah naaj ak soxot moos ku ko mës a gis. yow nga war a ñëw nit ñi waa jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf thank you waaw jërëjëf love you sunshine you are my sunshine you are my best friend you are here to give me vitamin D do your work don't go away léegi tey suma noonu jógate ok guys so may noppaliku tuuti te continuer beneen bind de ku bind lim wat lu mu wat ñu suuli borom ku foog ne gisuma ko. taxaw leen ba ma pare exercice des na juróom fukk moo ma dese fi ni nii ci ma doon def nii taxaw la ma pare ñu suuli nit ñi bind li ñu war a bind na kuy wax naan private vidéo ma ñëw ñu jaale borom caga bu fi bugg na nga ubbi ji website teñ teñ suuli la xay yi ngeen do li ngeen di cagata bonta soxota bugg a yàq askanu nit ñi le moos yal na leen xaqi askan wi daal yéen caga yëpp. li ngeen di bon te bañ seen bopp tey bañ askan wi ta dox xaj morning faale wu ma ko nga naan ma caga bu màggat bi xam naa li ma doon waaye ku fi xamee ab nat ab ab ab tiktok naan ma naan naan private video naka hubbi ji ponn website private video ko fa ñu suuli ko xaj yi ngeen doon sama bopp baa ngi yàqatoo xew waaye sama nijaay fa ne du ma dindi sama musóor gi di sama musóor gi ma wax ne du ma ko dindi mooy problème bi boppam neen biñ may xaay sama bopp baa ngi tàng ba sëy day neexut liy tax jeeg yu bari du ñuy bëgg a sëy ba miin lu leen neex def lii day natt la natt bi yàlla la a ah, nooy def fi ne sama bopp baa ngi ñàq ba waaye sama nijaay ne du ma dindi sama bopp ma jàpp si yàlla te wëcc ko noonu I learn a lot from you especially health jërëjëf kii mu ne man maa tax moom mu mu jàng lu bëri ami yow sa xama lan origine fan la man sa asamaan sa laa origine jógee maa waddee sa asamaan sa daanu China runge China dox ba Afrique ngelaw hmm. yi dana daane téléphone bi fa bugg taw fa bugg taw foo bëgg a taw fii taw rek noor ak nawet dafay naaj yéen yi ba nga kontaan mu soppaliku taw ma ne xam ngeen man lu ma nammam toggi gambien bu neex ba pare xam warga gune yi war nañ maa demal sa naar bale tey xaw ma ndax ubbi naa am déet ah waaye suma yaram bi may wàññi la de mhm, problème bi fi mu ne nii maa ne woon du lekk maalo tey ak suba démb lekk ma woon maalo di ngeen ci bu ma toggoon noonu di ko film noonu di ko lekk noonu lekk naa ko keroog mooy bërkaataati démb la woon ma lekk ko bërki démb démb lekkuma loolu lekkuma maalo salade laa lekk tey maa ne woon may lekk salade dégg nga ko suba ma daal di lekk salade wala végétable gannaaw suba noonu ma soog a nag lekkaat maalo loolu laa wax sama bopp de waaye seytaane ñëw fi mu rek xët suma xel mi dugg ci ferenku laayu ni ma amee ma ne ko ah ma toogi africain mu ne ko ah mu ne waaw maafe laa la guy nu mu tudd suppu kanja nangam nangam cereeg baasa de mën naa ko de loolu du taxawal ma focus li may def ba pare guys ok xaaral ma jekkali beneen juróom fukk Wow. Wow. Wow. Wow. ma ñëw dindi xaj yi may sonnal yëpp yi may sonnal yëpp ñu jaale leen waay <coughs> maa sonn fi ne may waaj a dee <laughs> benn waxtu ba mu jotee ak a yàgg ah taxalee ma noppali gaay léegi tuuti soo ko jeexal exercice alhamdulilah rabbil alamin bind ni kuy saaga ni li saaga yow a yow mi de xaw a lu muy saaga ni xaaral ma dindi ko ngeen amee chronique naqat yàlla bu leen xaru du ngeen jàpp si yàlla lii àdduna rek la oh my god yéen de àdduna mën na leen de nu ngeen ngeen nangoo àdduna mën you know mënee leen nii xaw yërëm naa leen wala seen maas yi yéen a di xaroo ka drogue mënu leen a handul àdduna at oh my god àdduna leen di handul rek.